هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها خطرة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégteeg kontaan te ñëwaat ak yéen suñu tafsirul quraanul karim comme niñ ko doon defee ci weeru koor bi yépp xam ngeen ne tey la suñu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñaar di bokk ci bis yi nga xamante ni yu tool yi la nga xam ne dañ ciy séentu li nga xamante ni moom mooy laylatul qadri yàlla nañu yàlla defal ñu màng ko wala ñu taseeg moom di leen ziar bu wér a wér a wér di nuyuwaat bu baax a baax suñu caméraman bi nga xam ni mooy soxna Njéeme Thiaw nga xam ne mooy ànd ak ñun ci weeru koor bi yépp ci tafsirul quranul karim yi tey nag ñu ngi waat ak yéen ci beneen saar muy suratu abasa suratu abasa màkk la wàccee moom tamit mi ngi am ñeent fukki aaya ak ñaar suratu abasa nag li nga xam ne mooy sabab bi tax mu wàcc mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn silmaxa boo xam ni moo ko dikkaloon silmaxa boobu mi ngi tudd abdullahi ibnu um maktum mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a dégg si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam islaam ndax dafa bëggoon tuub tombeeg bi mu ñëwee mi ngi fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog ak ñi nga xamante ne ñooy kàngamu màkk yi seen kilifa yu mag yi ku mel ni abu jahlin ku mel ni utba ak walid ak ñoom ñu mel noonu ñoom ñu bari daal ñu toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne juróom benn la am na ñu ne juróom lañu ñu toog di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yonent bi di leen waar pour bëgg leen a dugal ci islaam te xam nga ne booba temps ñoom ñoo nekkoon kilifa màkk yi ñoom suñu duggoon ci islaam rek kon islaam bi day yomb màkk ñeneen ñëpp day dugg yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag xër ci ñooñu dugg ci islaam ñu ñuy laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi di leen tontu di waxtaan ak ñoom ci foofu nag la abdullahi ibnu ummu maktum daal di dugg si moom tamit di laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam buggul woon occasion boobu raw ko mu xaw a dummóoyu ki nga xamante ni mooy silmaxa bi ci loolu la yàlla wàccee suratu abasa moo tax dañ naan abasa bu fekkonte ni woon yenent bi sallallahu alayhi wasallam am na lu muy nëbb ci alquran kon saar bi mën na ko nëbb ba kenn du ko gis mais yenent bi sallallahu alayhi wasallam amul lenn lu muy nëbb ci alquran ni ko yàlla wàccee rek noonu la koy wàccee si jaam ñi yàlla subhanahu wa taala commencé saar bi ci wax ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam daal ni ko abasa wata walla abasa mu ne mooy ñëkkal na kanamam wata walla mu dummóoyu moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo tax mu def loolu mu ne an jaahul ama baka silmaxa ba dikkalee silmaxa boobu mooy abdullahi ibnu ummi maktum yonent bi yàlla di ko yedd bu fekkee mën nañ koo wax ne ko lan wama yudrika laallahu yadakka ana lan moo la xamal yow muhammad ne gumba gii day wala silmaxa bi soo ko waaree soo ko waxalee li nga xamante ni moom mooy islaam dina dugg ci islaam dina waaru aw yadakkaru fa tanfaahu dikra wala mu fàttaliku sax fàttaliku boobu daal di koy jariñ kon kii nga xam ne moom nga ñëkkal sa kanam ci ginnaawam ci kanamam kii waroo koo def noonu ndaxte xamoo ndax soo ko waaree dina waaroom déet wala boo ko waxee dina mën a fàttaliku daal di dugg ci islaam gëm yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla continué ak moom di wax ba tey daal ni ko amma man istaghna fa anta lahu tasadda mu ne ko amaa man istaxnaa ndaal ki nga xamante ni dafa ñëw day loola yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg a déglu li nga xamante ni mooy islaam bëgg a déglu sa waaraate bii fa anta lahu sodda tasadda yow yaa ngi koy fekk yow yonent bi si li mu bëgg yaa ngi koy baare ci li nga xamante ni moom la bëgg te yow kat loolu waru la woon li la war sallallahu alayhi wasallam mooy wama alayka allah yazakka li la war mooy nga fàttali rek nga wax rek bu fekkente ni li ngay wax jëriñ na baax na su jëriñul tamit yow fàttali bi ak wax ji rek moom mooy li nga xamante ni moom moo la war waaye ñii mënoo fexe ba ñu jub te yàlla dogalu ko wala ñoom bëggu ñoo jub kon nag yow li la war mooy nga jot jottali rek mu ne waaye wa amma man jaaka yasaa yàlla mu ne ki nga xamante ni daf laa dikkal di daw di waaxu yasaa di waaxu waaxu yu tàng daw ñëw ci yow ngir bëgg a dégg alquran te wa huwa yaxsha tombe wala fekk na boobu moom mi ngi nekk ku ragal yàlla muy abdullahi ibnu ummi maktum boobu fa anta anhu talaha yow yaa ngi ko sàggane yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam nangu woo ko wuyu ndax lan bëgg rek ñii nga xamante ne ñoom ñooy waa màkk tuub dugg ci islaam yàlla na ko du noonu de waaye alquran bi kalla innaha tadkira alquran bi ab fàttali la ab waaraate la danga ko war a def ci ñëpp yemale ñëpp nag muy ku silmaxa ki muy ki nga xamante ni mooy buur bi ak ki nga xam ne mooy baadoole bi ñëpp a war a yem ndax alquran fa man shaa dhakara képp koo xam ne soob na ko rek daf koy fàttaliku ku mu neex jàng li nga xam ne mooy alquran dégg ko fàttaliku ko waaye te bul fàtte ne alquran bi fii suhufin mukarrama dafa nekk ci ay fooy yoo xamante ne yu ñu teral la alquran yàlla daf ko wàcce ñi def ko ci ay fooy fooy yoo xam ne yu tedd la mu jugee ci yàlla subhanahu wa taala mu wàcce tamit ci fi nga xamante ne mooy allahul mahfuz yàlla mu ne marfuatin mutahara mu nekk lu ñu yëkkati ab dayoom alquran moo gën a kawe lépp loo xam ne mi ngi ci kaw suuf waaye mutaharatin mu nekk loo xam ne lu laab la moo tax sax ku laabul dañ naan bu bul téye li nga xamante ni mooy kaa kaamil bi yëpp ndax alquran dafa nekk loo xamante ne nii marfuatin lu yëkkatiku la lu kawe la waaye mutaharatin lu laab la tamit yàlla daal ni fan la alquran jugee bi ay di safara mu jugee ci ay loxo yi ay mën nañu ko tuddee ay ambassadeur safara si arab boo ñu ko waxee baat bi mooy ambassadeur ambassadeur yooyu mooy yan mooy kan mooy jibril bi nga xam ne moo daan jëlee alquran bi ci yàlla subhanahu wa taala di ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne bi ay di safara mu daal di koy jaarale ci ay loxo yoo xamante ne nii mooy loxoy sam kooku nga xam ne mooy jibril nga xam ne moo daan tukki di indi li nga xamante ne mooy wax yu bi di ko jëlee ci asamaan di ko wàcc si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne malaaka yooyu nekk kiraamin barara ay malaaka yoo xam ne yu tedd lañu da lañu ci seen boroom waaye yu baax lañu ci yàlla subhaanahu wa taala malaaka yoo xamante ni ñuy topp yàlla lañ yuy dëggal yàlla lañ yu nekk yoo xamante ni duñu mooy yàlla te lu mu leen wax dañ koy def mu ne yàlla daal di bàyyi loolu nag mu ñëw ci doomu aadama ak ni mu ne weddi yàlla ak ni nga xamante ne du gëm ba keroog dee di ko dikkal yàlla mu ne qutilal insaanu ma ak fara mu ne rees na doomu aadama gisuma lu ko gën a mën a weddi loolu waxin la maanaam ngay wax nit ki ne ko yow daal yàlla na nga dee rek yéen yàlla subhaanahu wa taala loolu la jëfandikoo fii mu ne qutilal insaanu yàlla na doomu aadama bi dee wala rees na ko maa ak farahu gisuma lu ko gën a mën a weddi te mu ne moom kat doomu aadama weddi waru ko woon ndax lan min ay shay'in xalaqa mu ne xolal si li nga xam ne moom la ñu bind doomu aadama yàlla di wane doomu aadama ak doyadeem di wane ne nit du dara lu dul benn mbindeefu yàlla rek la kon warul nekk koo xam day weddi yàlla wala muy rëy rëy lu ci kaw suuf wala muy ngand ngand lu wala mu yaakaar ne moom moom moom lépp la fekk moom du dara ndax yàlla nee na doomu aadama kat min nutfatin xalaqahu fa qaddara mu ne doomu aadama maa ngi ko bindee ci toq mànn yu boo xam ni place bi ñuy génnee sobel fa lay jaar pour génn kon doomu aadama ku doyadi la yàlla mu ne fa qaddarahu ma daal di koy yemale defar ko ba nga xamante ni dafay nekk doomu aadama boo xam ne dafay am tànk am loxo am lépp loo xam ne rek doomu aadama daf koy am yàlla mu ne su masabiila yassara topp ma yombal yoon bi nga xam ne fa lay jaar pour génn am ñu ne déedéet su masabiila yassara mooy mu yombal ko yoon bi nga xam ne mooy yoonu jub waaye li munti xew yàlla daal fii doomu aadama di jaar pour génn bu ko yombalul woon du fa mën a jaar pour génn ndax gis nga doomu aadama ni mu toll ak fi muy jaar di génn nu mu ndawee kon loolu bu fekkul woon yombalug yàlla mi ngi ci kon dina nekk loo xam ne du ja lu jafe lay doon waaye moo tax mu ne su mas sabila yassara man maay ki nga xamante ne maa yombal yoon bi nga xam ni fa la doomu aadama di jaar mu ne ginnaaw loolu lépp ma amaatahu fa aqbara mu ne su juddoo ma yombal juddu gi daal di koy dundal ba heure bu ma neexee nag ma amaatahu topp ma rey ko fa aqbarahu ma daal di koy defal bàmmeel xam nga yàlla ci suturaam moo tax bu doomu aadama génnee àdduna ñu utal ko bàmmeel rob ko fa doomu aadama nuroowul ak ay bàyyi ma tey bu neexoon yàlla ku dee ci àll bi dañ lay sànni gaynde yeeg bukki yeeg yëpp di la lekk waaye yàlla mu ne defuma noonu doomu aadama dama koo teral moo tax summa amaatahu fa aqbara man maa koy rey ba pare daal di sàkk nag wax nit ñi ñu defal ko bàmmeel nga xam ne bu deewee dañ koy suturaal suul ko ci suuf si nga xam ne fa la jógee woon yàlla mu ne ba kañ nag summa iza shaa anshara ba keroog su ma soobee rek ma daal di koy dekkalaat su nekkee ci biir bàmmeel bi foofu lay nekk ba keroog bu ma soobee man yàlla ba yowmal xiyaam ñëw ma dekkal ki nga xamante ni moom mooy doomu aadama mu ne waaye doomu aadama ak lii ma nga defal lépp ak lii lépp xew moom day teewul mi ngi nuur rek ci li nga xamante ni mooy mooy mi ngi nuur ci ay bàkkaar moo tax dañ naan nit bu fekkante ni woon ku am xel la mu xalaat fi mu jóge ak fi mu jaar biir bi mu jaar ak ni mu génnee ci kaw suuf ni ko yàlla teralee def ko muy doomu aadama kon kooku dafa waroon a nekk kuy respecté yàlla waaye ku koy jaamu ba keroog muy génn àdduna yàlla mu ne kallaa lamma yaqdi ma amara moom day doomu aadama ak li ma ko defal lépp teewul moom du matal li nga xamante ni moom laa ko digal du def li ma ko digal ba mu mat léeg-léeg sax du ca jaar day def lu ko neex rek yàlla bu daal di di ñu wax ñun doomu aadama mu ne xool leen fi ma jaar ak yéen ba pare ak li ma leen defal mu ne fal yanzuril insaanu illa taami mu ne doomu aadama na xool ci li muy lekk fan lay jóge ba egg si si moom ba mu ñor ba mu lekk ko yàlla mu ne fi muy jóge mooy fan anna sobabnal maa sobban yàlla mu ne ñun ñoo sotti suuf ndox mi ak sotti xam ngeen ne taw bu amul woon ci kaw suuf gàncax du mun a am kon nit ñi duñu am lu ñu lekk yàlla moo tax mu ne xolal doomu aadama bi yow xolal li ngay lekk balaa muy egsi si yow fan lay jógee man maa wàcce ndox mi mu jógee ci asamaan wàcce ko ci biir si kaw suuf ak wàcce mu nekk ndox moo xam ne bu bari lay doon mu ne su ma paree ci loolu su ma shaqaq na al arda shaqan ma xar suuf si yàlla mu ne su ma shaqaq naa topp ma xar al arda suuf si shaqan ak xar xotti ko ba nit mën koo bay mën see ji dugub wala leneen lu ñuy lekk mu mën cee génn meññi mu ne su ma paree fa am bat naa fiiha habban yàlla mu ne man maay jëmbat maay saxal ci suuf soosu li nga xam ne moom mooy pepp xam ngeen ne pepp dugub ni mu wowee ak ni mu mel nga daal di gas suuf soo xam ne su wow kongu la daal di ko fay suul daal di dem sa yoon ki koy saxal kooku borom kàttan la ki koy saxal mooy buur bi subhaanahu wa taala mu ne moo tax man yàlla fa am bat naa man maa saxal ci suuf soosu fiiha habban pepp te du pepp kese de wa aynaba wa xadban maa fa saxal tamit li nga xam ne mooy raisin bi ngeen di lekk mu nekk lu neex lool waaye tamit ak li nga xam ne moom la jur gi di lekk su fekkente ni pepp bi ñëw na ngeen bay ko lekk li nga xam ne moo ci baax li nga xamante ne nii tamit moom mooy li jur gi di lekk ngeen jël ko jox ko li nga xamante ni moom mooy jur gi yàlla subhanahu wa taala mu daal di continuer mu ne wa zaytunan wa naxlan man maay saxal li nga xam ne mooy garabu olive ci kaw suuf maa fi saxal li nga xam ne moom mooy tàndarma lii lépp di ay kéemtaan yoo xam ne yàlla daf ñuy wan ni moom rek mooy yàlla moo jar a jaamu mu ne wa hadaaiqa xulban ak ay tool yoo xam ni yu naat lay doon yu sëq lay doon te yooyu yëpp mi ngi jógee fan ci si nga taw bi yàlla taw nangu gi suuf gi nangu yàlla saxal gi mu ko saxal ci kàttanam mu def fi ay tool yoo xam ni yu sëq lay doon yu naat lay doon waaye mu def fi lan wa faakihatan wa abban mu def fi ay fruits yàlla mu ne si sama ndox moomu bu wàccee ci kaw suuf mu daal di taw maasale li nga xam ne mooy tool yëpp tool yi nga gis dugub ji ak cafka nu muy cafkaam nu muy mel te lépp benn ndox bi la mu ne nga gis li nga xam ne mooy fruit bi bu bu neex beeg bu naqari bi lépp nu muy mel te lépp benn ndox bi moo ko wàcce kon lii waroon nañ cee waaru ci yàlla subhaanahu wa taala mu ne ma génn ci faakiha muy ay fruits pom ak orange ak yëpp wa abban ma génn fi tamit li nga xamante ne mooy li seen jur gi di lekk nga xam ne bu sax bu léeg-léeg sax du ngeen ko ji mais day sax ci àll bi noonu rek pour ji pour jur gi man koo lekk man yàlla maa def loolu mu ne lii lépp soo gisee ma def ko lan moo tax ma defal leen ko mataan lakum wali anaamikum xam nga ñëwoon na ci saar bee ñu génnoon ñëwaat na ci saar bii yàlla mu ne lii lépp bu nga gisee ma defal leen ko li tax mooy mataan lakum bëgg rek ngeen bànneexu ci wali anaamikum ak seeni jur man maay ba maay maay wàcce ndox mi gàncax gi daal di màgg génn ngeen lekk la ngeen ca soxla la ngeen ci soxlawul jur gi lekk ko kon xanaa du yàlla moom xéewal na doomu aadama yi xéewalaale bàyyi ma yi mu ne waaye lii lépp nag may tëndiku leen de bànneexu leen de waaye na ngeen ma sant na ngeen ma jaamu ndax am na bis boo xam ne dina ñëw te bis boobu su ñëwee fa iza jaati sooxa yàlla subhanahu wa taala mu ne bi fekkente ne yuuxu bu mujj bi ñëw na bis boobu saaxa boo gisee ñu tuddee ko kalimatu saaxa mooy yuuxu boobu dafay tëxloo doomu aadama yi su malaaka bi yuuxoo rek ñëpp dañuy tox seen nopp yi day mel ni dafa am lu ci nekk ba dootuñu dégg dara yàlla mu ne keroog yow ma yafirul maru min axiihi mu ne keroog nit ki dina daw ki nga xamante ni mooy mbokkam mbokk yi xool leen mbokk nu mu neexee frère ak sœur nu mu neexee képp koo xam ne tey fii ci àdduna tudd na leen rek sa xol dafay jug da ngay bëgg a venger wu da ngay koy bëgg a fayul doo bëgg ku ko tudd wala nga laal ko waaye yàlla mu ne bis boobu métti na métti boo xam ni yow ma yafirru bis bi nga xam ne dina daw almar u doomu aadama bi min axiihi ci mbokkam doo bëgg a gis sax sa mbokk ki nga bokkal ndey ak baay ki nga bokkal baay ki nga bokkal ndey doo ko bëgg a teg bët wa ummihi wa abihi mu ne bisub keroog doomu aadama day daw yaayam xolal yaay nu mu neexee ak ni nga ko bëggee ci kaw suuf ak ni nga ko fonke waaye yowmal xiyaam dina metti metti goo xam ni dina tàng-tàng boo xam ni yàlla mu ne doomu aadama bi dafay daw sax ki nga xamante ni moom mooy yaayam wa abihi ak papaam sa papa sax danga koy daw te xam nga ne fii tey ci àdduna boo gisoon tey luy ñëw di lore bu ko dal ci sa papa mën nga koo défendre loolu sax mu dal sa kaw ndax bëgg bi nga koy bëgg waaye kon yowmal xiyaam jar naa jaamu yàlla ndax lu metti lay doon mu ne waaye wa sahibatihi wa banihi mu ne keroog nit dina daw àndandooram jëkkër day daw jabaram jabar di daw jëkkëram kon bis bu metti la waaye wa banihi xoolal doom nu mu neexee doom tey jii yaay bu dara doon ñëw mën naa joxe bakkanam doomam sauvé mu ne waaye yowmal xiyaam yàlla dafay jaam ñi day doomu aadama bi dafay daw ki nga xamante ni moom mooy ay doomam lan moo waral loolu li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yughnihi yàlla mu ne keroog kenn ku nekk ci doomu aadama yi am nga mbir mu la doy kenn du tal kenn kon foofu nga xam ne doom dafay daw yaay yaay di fa daw doom baay di fa daw doomam doom di fa daw baayam jabar di daw jëkkër jëkkër di daw jabar képp ku la ne mënal naa la fa dara daf lay nax yàlla mu ne li kulli mri'in minhum yawma izin sha'nun yughnihi keroog ku ne sa bopp daf laa doy yàlla mu ne waaye bu ñu dekkee wujuhu yawma izin musfira mu ne am na kanam yoo xam ne keroog dafay nëtax dafay rafet dafay leer ndax jaamu yàlla gi ñu doon jaamu yàlla ci kaw suuf boo xikatun mustabashira kanam yoo xam ne dañuy reetaan dañuy bëgg dañuy muuñ fii ci àdduna rek am na doomu aadama yoo xam ne suñu génnee àdduna da ngay gis seen kanam yi dafay leer dafay dafay rafet dañuy mel ni ñuy muuñ dañuy mel ni ñuy kontaan ndax lan jaamu yàlla bi ñu fi doon def waaye mu ne wa wujuhi yawma izin alayha ghabara mu ne am na yeneen kanam yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam dafay mel ni pënd moo nekk ci seen kanam yi dafay ñuul kukk dafay ñëkk doo xàmme sax nit ki bu baax soo ko xamul woon dëgg doo ko mën a xàmme ndax pënd bi nga xam ne mooy muur kanam gi ndax xam nga doomu aadama bu fekkee du jaamu yàlla du am leer fii ci àdduna waaye bu dekkee tamit kanamam du am leer léeg-léeg nit ki kanamam mën nga cee xool rek xam ne kii jaamukatu yàlla la ndax leer ga muy àndal dañ koy joxe misaal ci jullit bi buy génn àdduna ak ki nga xam ne du jullit ni seen kanam di uutee mu ne tarhaquha qatara daf koy muur ak ñëkk ak ñàng goo xamante ni mooy muur kanam gi ba mel ni poussière moo ci dugg yàlla mu ne ñooñu mooy ñan ulaika humul kafaratul fajara mu ne ñooñu mooy kàccoor yi nga xam ni dañoo weddi yàlla kon bu ñu dara jaral weddi yàlla fii ci kaw suuf nga xam ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dekkee suñuy kanam dafay lëndëm yàlla ñu yàlla boole si ñi nga xam ne seeni kanam dafay leer naññ ëllëg yowmal xiyaam ñu bokk si ñi nga xam ne dañuy dekki nekk ñoo xam ne dahikatun mustabashira dañuy reetaan di muñ mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan dañuy déglu ñu ngi lii mooy suratul abasa di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal li nga xam ne mooy dégg ak topp yàlla bàyyi ñu ba ñu mën a eggale koor gi comme niñ ko commencé ak jàmm di wax ne tafsiru tay bi nag ki nga xamante ni moom lañ ko tuddee mooy suñu doomu baay suñu xarit ajaratu faal li nga xam ne mooy suñu lépp jàpp nag ci tafsir bi bu baax a baax a baax moom lañ ko tuddee tey di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
asalaamualeykum mbokk yi ñoo ngi leen di dalal jàmm tey ñu fas yéene pour dalal leen ci beneen jotaay ñu di leen présenter suñu produit ànd ci ak Sissoko xabatu sawda ñu di leen fas yéene présenter suñu karité bi di Sissoko gaa karité Sissoko gaa karité bi karité miracle la dafa baax efficace te it 100 pour cent produit naturel la ak Sissoko gaa karité bi lépp loo xam ne jaaxal na la ci sa yaram ci wàllum rhumatisme yaram buy esen tànk yuy ruux bopp buy métti wala ngay stressé foo toll del jëfoo Sissoko gaa karité ndax Sissoko gaa karité bi huile de olive lañ ko defaree te ñépp xam nañ huile de olive li muy def ci yaram rawatina nag boo koy lekk ndax olive ci boppam dafa baax ba noppi Sissoko gaa karité bi dañ ci moccaale alxuraan def ci ndox zam-zam def ci xabatu sawda def ci lii di xorom poole ak Sissoko gaa karité bii baax na set na sell na te dañ ko liggéey ci anam yu mucc ayib kii di Isaaxa Sissoko muy borom xabatu sawda dafa am ay diplômam yu leer ci wàllum faj ndax Isaaxa Sissoko fii di réewum Dubai Inde ak Chine rawatina réewum arabe yi ak réewum tubaab yi ñépp a ko nangu li muy def ndax dafa am ay diplômam yu leer ci wàllum faj Sissoko xabatu sawda gaa karité dañ ko liggéey ci anam yu set yu sell te mucc ayib te gaa Sissoko karité bii dañ ko jaarale fi ñu ko war a jaarale saytu ko ñu liggéey ko ci anam yu set yu sell te mucc ayib jënd ji leen Sissoko gaa karité bii lépp lu la jaaxal ci wàllum yaram buy esen tànk yuy ruux ndiga buy métti ngay stressé foo toll sa bopp di métti te Sissoko gaa karité bi miracle la ndax wax naa leen ne dañ ko moccaale alxuraan xameel Sissoko Ga karité bii pot baa ngi nii xàmmee leen ko Sissoko Ga karité rek la day faj ci anam yu set yu sell te wóor yow mi ci bëgg a prix en gros wala détail ñëwal ci Nord Foire rond-point 26 en face restaurant Yum Yum wala nga dem ca Médina rue 1 angle 12 ak Sissoko Ga karité bii amul benn effet secondaire 100% naturel 100% bio te li ci neex mooy dafa am barke ndax alxuraan lañ ko moccee jënd ji leen ko te am nañ ay représentant yu nekk ci Afrique Europe ak Asie Sissoko Ga karité bii lu baax la lu set la lu sell la